ruu la installé wu soo dee tudd yàlla di moytandiku bàkkaar di def yenn yi pratique yi di di di di lekk lu lew day dem ba loolu day yeewu ci yow bu yeewoo ci yow yaa ngi dégg dangay ngay jékki di xam luy xew suba billaahi wallaahi tallaahi fan yi keroog jeudi jeudi bële hmm. dañoo jógee wal fajiri bi ma defee émission ba pare ma ànd ak Baye Mbaye ak Seexu Naasir la hmm. ma ne man de Seex Yirim Seck am na luy xew ci moom quoi xaw ma lu mu doon nag hmm. voilà xawma ma day bëgg a defub déclaration xaw ma dafa am lu koy bëgg a dal mais sa siir que ne man am naa sant lu ma wér ci ne Cheikh Yérim am na lu muy waaj def daal ñi xëy suba ñu ne takk na Astou Dione ñu publier ko ci internet bi yëpp ma ne ma ne voilà lii laa doon sentir te géntuma ko defuma ko dama koo jéeneer jéeneeraat ko mu wóoru ma ne lii lu tegula luñ may wax comprendre nga mm. loolu dafa am li may wax nii maanaam bu ma neexee ma wax la ma mën naa la mën naa maa loo xam ne daal da ngay jàpp ne kenn waru koo mën a xam ma xam ko man. waxaatal loolu ah, ah non ko. loolu su boobaa nag loolooy jaayu nag man amul njariñ ma koy wax. Ah. li may wax nii man saa bu ma ko waxee. ba ma koy wax ci Samba Sall. waaw billaahi dimbali ko dong nga taxoon ma di ko wax. barke sëñ Touba. Mm-hmm. pour mu baña dugg ci dossier mm-hmm. ko bi. voilà barke alquranul karim billaahi bëggoon mu déggal ma ba heure bi fekk ko muy waaxu. Mm-hmm. Farba Ngom am na lu ma ko waxoon. xam na ko xam naa ko dofut dara jëlu ko. jóg na ci ah, xam na ko xam naa ko man du fi nekk di wax man Seex Seex Taalif bàmmeel maa ko gën a dë maa ko gën a nëbbutu mm-hmm. voilà man kenn du xam dara ci nit fekk maa la ko wax mm-hmm. voilà doo dox mukk ba ne la yow nangam fekk loola man nga ko waxaloon man du may lu ma noonu man du ma nit kooku voilà mm-hmm. Ngom xam na xam naa yàlla xam na la ma waxoon billahi wallahi watallaahi dimbali ko dong ak bëgg mu nekk ci jàmmam di daagu ci suuf si yi am jàmm ak salaam voilà parce que suuf si moom saay ñi jot a dee ñi ngi tëdd jëriñ defuñu dara ñiy dund nag même bu dee dañ lay tooñ sax ñi ngi dund rek waaw baax na mm-hmm. voilà mais dafa am yoo xam ne boo gisee ak nit nekk ca te amoo foo mën a jaar fu dul wax da koy wax rek mm-hmm. bu la weddee sax baax na quoi nga xam ne def nga li nga war a def a déggee yow li nga waxaat lii yëpp mel ni Badio Camara rek nga fi wax a moytuwaat naa ko da ngay daanu kay loolu loolu kay jeex na bul rey nit ñi kon procureur moom ban non procureur am lu ma koy wax man jotewu ma ak moom dara moom daal na am fayda te am fula nag te bàyyi euh, conférence yu ñorut yi waaw <laughs> ah, procureur moom moom màngooyam bu waddee te ñorut day day yàqi <laughs> day bàyyi ba wax ñor muy doog a wax waaye génn naan ay kabilin jaataak ay yu kenn xamut yoo xam ne boo paree booy dañ lay jël di la teg togaat loolu amul njëriñ daal waaw procureur rek màngooyam balaa ñor balaa wadd nañor bonom waaw day wadd rek ñu jël jëfandikoo waaye wadd ba wax ba noppi ñuy jël di baxalaat ak mm-hmm. di ci dolli xorom ak mm-hmm. man li ma jaaxal man ci dëgg laa la xam euh, comme li ngay wax ni yi nga fi wax yëpp ñu teg ci bët lu ci ëpp daanaka bu dara xewee rek var bi ñu indil Cheikh Bara bu positif lay doon lu rafet lu ne waxoon na ko bu yàgg mu leer na lii du montage am na sëriñ yoo xam bokkul nag sëriñ si xam dañuy bàyyi ba dara xew ba pare bu vidéo bi duggee nga gis il y a deux heures lii lii léegi lañ ko dugal ñuy wax wax yoo xam ne que yéen tappale yooyu nan ko moytu man lii da ngay gis ñu naan Cheikh baar waxoon na ko un ci ginnaaw ak yooyu mais damay gis li ngay wax ci dëgg ak logique a chaque fois bu ma liiree commentaire dinaa gis sans commentaires yu ànd ak yow mais dina am quatre génn gaam yoo xam ne que dañuy déranger quatre génn génn gaam xaw ma répondre automatique yi la xaw ma lu mel noonu bu ko defee te yow dëgg laa la xamante ñëw contraire yu ñàkk wax dëgg lan lay waxal ñooñu boo amoon picc boo leen di dóor lan la. loolu. mooy waaw dama ne loolu boo mooy àdduna loolu yi nga gis. mooy àdduna. boo àdduna. Mm-hmm. da wax li ngay wax. Mm-hmm. ki ko gëm gëm na ko lum ci teg yëg-yëgam la ki ko weddi weddi na ko lum ci teg yëg-yëgam la. Mm-hmm. xam nga lu am solo te am solo rek. mooy boo waxee ki kay weddi moom ah na ko te ticc. ci mu dindi say wax teg fa dara. teg fa dara. loolu na ko tëtti ci man loolu mooy sama mission mais li nga may wax man kooku concerné wu ma moo lal di jaay doo nga yem day am juróom ñu la romb jënduñu am ko la romb ne eh am jaay ma nangam jaay ma màdd ko mu continuer am na ñeneen ñaar ñu la romb ñoo xam moom du bëgguñu màdd xooluñu rombaat kenn ki jënd ñeneen ñaar ñu romb loolu mooy àdduna quoi amul kenn koy wax ñëpp gëm la mm-hmm. amul kenn koy wax ñëpp weddi la point mais li ab am solo mooy mm. ñi ma bëgg a daa bari lool Mhm. man demoon nañ ba tëjjil ma groupe. waaw. boole ma ca group ba te <laughs> yeguñu ko man akamaa akamaa nag man nag yàlla. <laughs> Hmm. man damaa mus groupe man damaa muslaay de. Ah. ubbi <laughs> xarit intime bu nekk RTS. waaw. daf maa mos a boole koo ah, naa noppi rek. gars yi daal dañ ma dugal ci group waaw santaane ma ñu topp nañ topp vidéo mhm. daane ko. di ko topp. xam naa nag day saan def nañ lu ne. Mm-hmm. waaye génnewun dara ndax man man man moom yàlla daa dogal li may wax. Mm-hmm. xoromu ma ci sama cin leblewu ma ci fayu ma ci bor. Mm-hmm. li may wax billaahi ni ma ko gëmee laa koy waxee même bu fekkonte ne daa dajeeg ma fen da xam ne lii laa gëmoon lii laa wax. point. léegi gis naa ñu génne benn vidéo bu yàgg xam naa li ma ci ñaaw nag loolu loolu moom moom moom moo moo moo leen ci kii ñu naan. Euh. Euh, mooy bi ma waxee ci ne Macky Sall day daanu gis naa benn waay bu Mm-hmm. moo fi waxoon lii mm-hmm. mooy mm-hmm. ma ne buñ buñ ñu doo buñ ma dooleeloon sénégalais yi mën nañu am expérience de vie bi ñu am mooy di ko am 63 ans dee ah, mooy loolu suñu première émission la xam émission loolu suma première émission ba léegi kon li ma fi waxaat lépp amoo loo ma waar yow bu jëkk ba te li ma wax ku ko weddi nañ tëj pharmacie pharmacie yi lu ñu fiy jël lu ñu dindi mooy ñi war a dee buñ naanee garab yi dee gi andu <laughs> voilà ñun bu ñu demoon ba bañ dooleel médecine traditionnelle. ñuy fajoo suñ reen yii. Ah? ni ñuy deewee wàññiku xam nga luy garab. Mm-hmm. xam nga luy reen. nun da nga naan noy garab gi jël lekk. Mm-hmm. garab gi na uf nga xëcc ko. maanaam li ngay génn yow garab boo koy dundee li li ngay ñoddi garaba la ko jox. gis nga boo safee boo lekkee ba noppi. Mm-hmm. loo lekk garab la. ceeb dama ñambi. carotte. soble suppeme ñebbe naajo ceeb euh, naajo loo mboq loo lekk rek garab la soo paree mhm. tuur gi nga koy tuur dugub mhm. loolu la suuf si di aspiré waat garab yi dunde ko kon xam nga say say tuur dugub moo nekkaat garab gi mhm. soo ko lekkaatee feebar yëpp manqué vitamine dong la mooy tax nga nga tëdd ñu samp la biteel nga jóg dem saw yoon léegi nag buñ demoon ba nga xamante ne ñun suñ garab yii moo ñuy fajaat. moo ñuy fajaat li ñuy dund day yokk. ni ñuy néewee doole nii di kof kofi day wàññiku. Mm-hmm. yenn maladi yu bari yu ñu yab ay bët ak ay tànk yooyu mm-hmm. yëpp dafa am ay vitamines yuy dee ci sa biir yaram. Mm-hmm. vitamines yi bu dee neer yi dee. loolu mooy tax doo mën a doo di am ay feebar. ñun médecine la ñuy wax. ñu naan non kii nee na day yokku fan quoi. waa léegi man damay yokku fan. Uh-huh. man. <laughs> dama yokk fan de. waaw waaw kuy war a dund 40 ans boo ñëwee. Ah. ma dundal loola 50 ans maa ko wax. dégg ngeen ko waaw. Cheikh Bara nee na ko war a dund 50 40 boo ñëwee mu dolli la. 50 ans day fànqoog dee di sarax. nit yonent bi wax na ko sarax day fekk nga war a dee. Hmm. nga sarxe dee nga fànqu. kon kay xanaa kon xanaa kon kon kon kon loolu loolu loolu man man na maa fànqoog dee ndax mën naa laa digalub sarax nga def ko. faju faju day tey dee am na ñoo xam ne ne billaay bu ñu amu doon xaalis ba léegi dee nañ bu yàgg dañuy jël avion dem ci tubaab yi ñu defaral leen ay fiil defaral lépp ñu ñëw fii toog di dund bu paa paa yi maase ak ñoom ku mu ci dal nga dee léegi mm-hmm. kon kay xanaa tubaab dañuy yokk dund ah nekk fii di wax wax yu ñàkk fayda yoo xam ne man daal man kum neex ne ma yaa mën a fen waaye doo andi li ma fen mm-hmm. kum neex na ma yaa ñeme yàlla mm-hmm. waaye doo andi ni ma ko ñemee dégg lu neex waaye dama wax man aw ma problème yooyu xam nga kaa <laughs> wax la loo xam ne nii a man bu ma gisee nit di ma saaga ndey damay kontaan. Eh, lu la ngay kontaan. damay xam ne kii réeré na ma xaw ma. Hmm, saaga wàññi wala ñun ab donga. waaw Cheikh yow ñaata yoon nga wax eh diw ñu ne ah, kaañ saagante. <laughs> kii ne innama dëxëra ñi ku ne gën a ñàngale ba kenn hee bii moo gën a ñàng <laughs> ñi daa dem waaw ah, loolu ne loolu daa jëkk daa jëkk ci ñun ñun dañoo defar ñun ay saaga ndey eh. ay xamoo daraak eh. ay sar la tànk garabu garab ngaak yooyu ngay gis noonu. yàqkat yi ma sama dégg ko naan mokkalul euh, xat sàmmee ba naas xam nga yàqkat euh. xam nga baatub hmm, yàq mooy lan. mooy nga fekk mbir mu taxaw. Euh. nga yàq ko nga yàq ko. Hmm. boo tabaxoon kër ba pare. Hmm. ma ñëw yor ab katal palaane la dama yàq kër gi. da tiit ndax da ngay xam ne boo ma bàyyee kër gi ma yàqu. <laughs> <laughs> waaye bu ñu yoree ab paaka ñëw naan dama yàq kër bu la tee da ngay xëy xam ne waajur xamul nu ñuy yàq kër <laughs> ah? moo tax man fii ne boo may jéem a yàq damay xool li nga ma bëgg a yàqee rek bu dee ay saaga dong damay xam ne yow pareegoo pour yàq ma mi ngi mel ne ma tabax immeuble nga yorog lañ set naan da koy daaneel da xotil garaaw <laughs> teppil ba suba mo teppil nun ay Baay Faal lañ nun Seex Ibra Faal danoo yar kajoor koo mos a saaga ndey moo la yoreel bakkan dañ naan diw damaa saaga woon ndey fu mu mën a jaar maay jël bakkanam Cheikh Ibra ñëw baase affaire bi ba nga xam ne da nga naan da ngay yor sa kaasu kafe ma yor kaasu kafe nga tipp ma tipp ñu ne ñu naanante kafe continuer noonu ay Baye Fall lañ yooyu li jëntiwuñ ko ay sarlatan ak fenkat ak c'est loolu garaawut bun bu ndee sarlatan <laughs> problème ko mais man daal li may tabax yow yow xamoo lu koy yàq boo koy yàq non man de bi ma xoolee ñu ne xat sàmmee ba naa si ma ne kii tagg na Cheikh Bara am na imaam yu nekk Dakar mën nga cee wàññi cent yoo xam ne bu leen bëggoon tam loolu sax man bëggum am na koo xam ne damaa ñaan ci yàlla dund ba dee duma ko gis duma ko tudd li may waxit du ma ko dégg parce que benn mooy gis ku ko gis gis ku ñàkk njëriñ ku ko dégg dégg ku ñàkk xorom mm. te te xam-xam dégg nga kon daanaka daanaka amul solo waaye dafa am loo xam ne bu dee nee nga nit da ngaa nekk xaritam daan fanaan néegam hmm. naan mukkalul xadd sàmmee ba suuf loolu kuy fanaan néegum nit waru koo xam xam ko war a xam hmm. kuy jàngal nit waaw da nga ko waroon laaj ba xam ndax ko da nga ko doon jàngal wala jàngaloo ko waaye yow mosoo maa jàngal ba noppi naan mënoo tari xadd sàmmee ba suuf xanaa da nga ma doon téyel may tari xanaa seetaanul débat ba xam nga loolu sa garaaw dama koo xam ne yow dalalu la baa jàngalu la ba xam fi sa alluwayam naan la fii la sa alluwayam da nga koy laaj ndax dëgg li ngeen séqoon jàngale la woon wala xarito seex yow mën nit mën naa xaritoog yow te xamul ba xam mokkal nga am dara mokkaloo ko noon non nit ñi dañoo wérut waaw waaye amul problème dafa am ñoo xam ne rek mm-hmm. mais lan la mën a wàññi nit soxor ak lu koy indi ci nit ba nit bu soxoree yaayam day soxor ci force baayam day soxor ci soxor force magam wala wala soxor moom soxor soxor mi ngi mel ne ngay carte mariage adduna bi ni carte mariage ñu baata rek nga kupp rek waa ji jël ñeenti aas yow amoo aas hmm. ni carte gi tëddee la neexut moo la arrangé wut neexu la daal dafa am ñoo xam ne niñ xoolee àdduna ñoom position bi ñu taxaw baaxut ci ñoom da <laughs> nga ñu bëgg a saltal carte gi <laughs> loolooy soxor dañ koo baata rek gars yi waa ji jël ñeenti volet xaw ma ñeenti volet wala aas treefal ka kër ah. bëroon ñeenti wale la ñaar tout lañ jël mu jël ñeent ñeenti ñetti wale yi mm-hmm. jëlub âge jëlub neuf taxaw di la xaar nga xool kart gi xam ne arrangé wu la nga nga siisu mm-hmm. ñi soxor ñooy siisu maan yi mooy ni mbir yi tëdde mm-hmm. dañ koo xool arrangé wu leen waaye noonu bu nu nandate woon adduna kenn noosut fi ne Macky Sall moo la bi problème barke sëñ Touba sëñ Bass Abdou Khadir mii ngay gis moo la ay problème téeméeri junni yoon dana bëgg a tëdd du tëdd mm-hmm. dana bëgg a nelaw du nelaw mm-hmm. dana bëgg a waxtaan ak waa këram du waxtaan ak ñoom mm-hmm. dina maanaam amul vie ku la gën a kawe ak ak dund ko maanaam kooy ñee bis boo ko làmbatu woon xam ne maanaam waroo ñee affaire bi boo bañee soxor xam nga li nga yor ci carte gi yow yow na baax ak yow rek waaw xoolal ni la arrangé rek nga tege ko noonu <laughs> mais jërul ngay bu fekkente ne ñi baataral nañ carte gi yow amooy volet kii ami volet ki yor volet yi bu muusee boo bëgg a yàq carte gi day lànk rek ah, am na ñoo xam ne ku leen faale lañ bëgg bu leen faale kon daal euh, soxor mais moom du nit ki du ko yaayam du soxor mu soxor. non non du loolu du loolu du loolu soxor moom moom moom ni ma la ko waxee rek dafa am ñoo xam ne leen yàlla def moo leen neexut.